Merci à mes internautes de Témoin et bienvenue dans votre émission la Témoin comme ni ñu koy defee chaque invité tey nag ki ñu ciy dalal mu ngi tudd Passane kenn dootu ko présenté ci wàllu milieu médiatique nga xam ne ku ràññeeku la nekk journaliste nekk chroniqueur en même temps Passane tey moom la ñuy dalal tey ci biir émission bi nga xam ne mooy Le Témoin comme ni ñu koy defee euh, di ci fas yéene waxtaanee lépp lépp loo xam ne xew-xew réew mi la euh, ni réew mi di doxee ci wàllu politique ni réew mi doxee ci wàllu tàggat yaramam ak euh, lépp jamono boo xamante ne ni ko rek tey euh, dañ ci waxtaan ci biir témoin euh, Paasan maa ngi lay nuyu di la gërëm di remercier sa teewaay aussi ci sa disponibilité ñu fas yéene nga nuyu internautes yi ñu fas yéene waxtaan ci bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu yaa Seydi Souleymane ñu mm-hmm. ngi laa nuyu ba baax kontaan nañu jàkkaarloog aw fii ci témoin web euh, fii nag bërëb la bu nu boo xam ni dafay représenter lu bari si ñun mm-hmm. ndax euh, li ñuy doon doon ndaw jot nañ fi jaar euh, si jamono yàgg na euh, am mbégte di nekk ci kër goo xam ne ni Mamadou Oumar Ndiaye moo ko jiite nekk dafay bokk ci sunu ay wasila ci mbir mi ci métier bi donc nu ngi ba baax di ñaan yàlla yokk yokk yokk yokk yokk mbir mi gën a yokk parce que moom dafa bokk ci pionnier yi moom ak kilifa yooyu fi jóge di ñoom kër Touré Mm-hmm. ak ñoom uh, Sidi Lamine yàlla na yàlla at leen ci yërmande mi gën a moom ñoom Mamadou Omar Ndiaye ak ñu mel ni moom yàlla yàggal leen fii ba sa taat te mu ànd ak tal ak wér dañuy am mbégte vraiment parler de lui en mm-hmm. ce sens mm-hmm. et surtout nous rendre compte que le témoin devient de plus en plus grand parce que ñi nga xam ne ay pionniers lañu ñooñu seen ay mbir dafa war a yaatu ñoom ñooy sécurité média yi ok merci euh, ñoom ñooy sécurité média yi dégg ngeen ko noonu Pa Assane mais tey Pa dañu seetlu ne aussi ci. yow ci sa taxawaay ci wàllu média bi nga xam ne nekk nga journaliste nekk chroniqueur temps yi tout le temps da ngay waxtaan ci askan bi surtout ci réew mi nga xamante ne noonu lay doxee ak bitim réew tey nag ñuy fas yéene waxtaan ci xew-xew boo xamante ne nii xew-xew Afrique la euh, ñu seetlu ko loolu mooy ci discours bi nga xamante ne nii premier ministre malien bi mooy Abdoulaye ga jël na ko accusé la France d'avoir euh, violé l'espace aérien malien donc euh, ay cinquantaine de fois donc en e des des distribution du groupe terroriste donc non seulement discours bi sax aussi mais gis nañ aussi ci biir discours bi bi mu ko defee ba pare bi mu ñibbee euh, gis population malienne bi ni ñu koy teeroo euh, di ko féliciter di ko tàccu loolu tey euh, soo koy jàngat lan nga koy wax ci diggante diplomatie français Afrique ak ci diplomatie aussi ci relation colonie entre Afrique France mais mais c'est c'est c'est de visu c'est la fin de la France-Afrique mm-hmm. Euh, dafa amoon si jamono noo xam ni ñun noonu la ñu yàgg dundee noonu la ñu yàgg fonctionner. Mhm. ak suñu rapport ak l'international. Mhm. mais surtout la France en particulier mhm. dañu yàgg dinu ñu gëmloo ne léeg sax da ngay dégg ay kilifa fii Sénégal. naan vous savez nos relation avec la France c'est des relations d'amitié de. après ka mel ni man dama naan. mais est-ce que ñii ils ont compris wala ils font semblant de ne pas comprendre wala boog ñoom dañoo bokk daal bien ci loolu. la réalité mooy que tey dañu dañu toll jamono boo xam ni population yi ñoo comprendre. bu njëkk comprendre ñu. bu njëkk nous étions des complexe bu njëkk nu avions la faiblesse et le faible de l'homme blanc. bu ñu demee ba ki nga xam ni moom lañ jàpp ne bokk na ci seenu jàngkat yi gën a mag di Léopold Sédar Senghor ne la nation la l'émotion est nègre la raison elle les blanche Hélène donc kon problème am na ci préconception ak conception bi nga xam ni moo war a nekk suñu subconscient pour nu nekk ay nit yi am valeur am lu nu gëm dès le départ en amont on tue cela ce speech de Senghor man ma pose problème. parce que àdduna du yàgg ba tubaab gën a muus. nit ku ñuul nit ku ñuul la haute barbarie c'était qui tubaab la woon. les mathématiques c'était qui l'Afrique. et l'Africain. de la Nubie à l'Égypte ancienne. te Cheikh Anta def ko démontrer par le les les sciences. loo xam ne àdduna bi kenn du ko dindi. mais aujourd'hui lan la ñu nasaraan naxe. def ñu naxe rek ci. désinformation désinformation moo jur esclavage pour def esclavage nan lan la tubaab def ci mbonam ñëw gis benn Baye Assane ne ko est-ce que xam nga ni Souleymane mi sa noon la Baye Assane ne ah bon non dinaa ko lijjanti Baye Assane commencé xeex Souleymane Souleymane tamit riposté di xeex Baye Assane ñu reyante seen biir nasaraan ñëw ne Baye Assane Baye ma jàppale la mu jàppale Baye Assane Baye Assane jàpp Souleymane. donc ci jàpp Souleymane. Mhm. nasaraan ne ko bàyyi ma jàppale la nga jàpp nga jàpp nga jàpp kële. nga jàpp nasaraan di ko jàppaloo di ko jàppaloo ba xëy na jàpp ko moom. jàpp ko moom lié esclavage. Mhm. maanaam sunu biir la ñu ñàkk ànd ba mu jur loolu. Mhm. te ñàkk ànd boobu ci la nasaraan di dox dee bàyyi dee. ñàkk ànd boobu ci lay jaxasee ci lay def li muy def xam nga lan mooy objectif am. lu mu dundee yóbbu këram. léegi nag ñi mu ko seqal ci naïveté. ak ñàkk chance su tombé ju am ay njiit yoo xam ni souvent daf ci bëri ay traître de 60 à maintenant ñi nga xam ne jiite na suñu réew ñu ci bëri duñu wax ne ñëpp la mais ñu ci bëri surtout l'Afrique francophone dañu fonctionner ak ak ak remodelage dañ leen defaraat cest à ci seen jàng ci lépp dañ leen gëmloo ne non ñoom seen seen lépp mu ngi war a nekk ci tubaab bi ci tubaab là où l'anglo-saxon vous fait comprendre le sens du savoir, mhm. le comment savoir. Mhm. Le français nu fait le comment croire. Mhm. c'est-à-dire au lieu ngay am xam-xam français daf lay jàngal nga gëm ko moom. nga gëm ko moom mooy acculturation. nga daal di ne nool voilà. mooy loolu mu jur complexe yi. sunu kilifa yi. ku ci demul nekk fonctionnaire da nga naan doonoo dara. sanu yaay yi dañ la naan demal jàngi ndax nga xëy nekk bureau am ci bureau waaw am bureau comme ñëpp. alors que bureau. mbay mi tumuranke oui aada ak cosaan lépp tumuranke oui parce que simplement là où Houphouët-Boigny avait un temps en plus compris qu'il fallait bay pour dundal waa Côte d'Ivoire Senghor a préféré lui aller dans le sens je dirais pas forcément de la poésie mais Senghor était plus dans l'optique de les arts et les lettres foofu la la la ko nasaraan nelawloowee mhm. te nasaraan li tax mu def loolu xam na ko mhm. nasaraan moo la gën a xam ni en 1960 bi mu ñuy wax indépendance xam na ni toutes ces ressources dont on parle en 2022 mhm. am na Sénégal am na Sénégal mais buggul waa Sénégal comprendre lool mu désorienté Senghor Senghor désorienté son peuple donc ñun ñëpp ñu nekk ci pecc way ak bindam littérature nekk ci beneen sens mu fausser le débat léegi nag tey en 2022 qu'est-ce qui s'est passé mm-hmm. à partir de 2012 avant même 2012 mm-hmm. bi président Abdou Diouf demee mm-hmm. président Abdou Diouf dafa dem parce que à un moment donné il le fale quand Diouf a libéralisé les médias moo tax abu Diouf euh, benn président bu bu ñor la parce que Léopold Sédar Senghor dafa def vingt années yoo xam ne nasaraan daanaka moo doon diriger quand Diouf est venu il y a eu l'ajustement structurel pour rectifier le tir soi-disant FMI banque mondiale changé donne bi. Mhm. mais Diouf était sous pression. Mhm. te mënuloon ñàkk bañ a demee sens boobu. Mhm. mais qu'est-ce qu'il a fait. il est moment mu libéraliser les médias parce que libéralisation des médias parce que tubaab. autant il parlait de démocratie mais tubaab démocratul. moom intérim rek la xam. intérim kese la xam. léegi nag Diouf qu'est-ce qu'il a arrangé pour libéraliser. un temps soit peu te loolu dafay ànd ak démocratie bi tubaab bi di woote. même bu dee genre bëlde la woon mais dafay dafay fonctionner. effectivement loolu moo jur alternance. bi alternance amee nag avec quelqu'un qui s'appelle Abdoulaye Wade. koo xam ni nasaraan jàpp na ni malheureusement amuñu choix amee boo on va le laisser mu falu. tout en essayant di diil ak moom. Mm-hmm. gëm la Wade ne ko dina la jàppale dinañ la soutenir. Mm-hmm. mais Wade bi mu demee ba ci biir xam ne lii demut. Mm-hmm. mu fippu. effectivement bi mu fippoo tamit ñu xeexaat ko. malheureusement dañ ko xeexee ku ko jege. ku ko jege. kooku nag jege ko tey bi muy falu nasaraan daal na nag mbir mi jot na parce que tubaab ci réserve lay fonctionner li ñu doon dundee de 60 à 2022 il leur fale cycle bu bees. am nañu kenn ku ñu jàpp ne war na mën a collaborer ak ñoom. ñëw na déggoo na ak ñoom alhamdulilah. ñu ne ressources yi feeñ na ñun ñëpp ñu tàcc. way tombe waral ay gaaf. président dafa ñëw rek alhamdulilah. mais qu'est-ce les possibilités et opportunités offertes à cette france la loolu nag nekk benn moment boo xam ni internet bi dafa gën a ubbi bëtu nit yi les médias étaient la au temps de Diouf di ubbi nit ñi de 90 di wàcc ba 2000 internet bi nag à partir de 99 dugg nag en Afrique 99 2000 mu commencé di ubbeeku population yi commencé di comprendre comprendre les Maliens se sont soulevés contre la France quand quand ils ont compris et les peuples d'Afrique ont compris maintenant léegi nag problème bu France mooy population yi do mbir mi nekkatul dirigeant la ñuy amal affaire bu ñu ko téye téye léegi il leur faut téye population yi population yi na bëgguñu et c'est là où le danger nag nekk parce que bu population yi bëggul qu'est-ce que la France fait mook occidentaux yi qu'est-ce qu'ils font dañuy jéem a forcer bu ñu mënul forcer nag dañuy de dañuy dem ci naxaate bi xam nga naxaate bi lan la mhm. les produits de consommation quand aujourd'hui on prend une entreprise comme Sen'Eau jox ko groupe Suez Bertrand Camus groupe Suez kan la France la boo ñëwee tey ne France génn leen sama dëkk moom moo yor sa ndox da xam lan la ñuy naan ñun ci ndox mi loo xam ni dina dinañu ci dans dix ans dina dal dina dal suñu kaw dans cinq ans dina dal suñu kaw xamuñu ko kenn mënuñu garantie ne ndox mi set na boo defoon filtre léegi def ci ndox mi dinga gis ni ci ne c'est-à-dire da ngay xam ne que lii nit waru ko naan waru ko pour te dire comment ils sont cyniques. munu kaa jaayee la cher. ku daan fay dix mille quinze mille tey ñu ne ko cinquante mille ngay fay kii soixante mille kii la ca des. yooyu moo xaw a doy waar. et les populations africaines l'ont compris ils se disent que elles se disent du moins que maintenant c'est fini mooy Mali mooy Burkina mooy Niger. mooy tout le précaré français la mhm. Sénégal même chose. Mhm. maa ngay dégg sanu yaay ba Aïssata Tall Sall muy wax di en tout cas pas muy wax mais on di mhm. l' état du Sénégal photo la ñu illustré. le l' état du Sénégal mu ngi condamné deuxième coup d' état bi am Burkina lu la si sunu yoon. quand quelqu'un bu fekkee ni population yi ñoom ànd nañ ci loolu. mais lu suñu yoon. li xew Mali population yi dañ ci ànd. Euh, même que Burkina Faso sax gis nga ko aussi tamit gars yi dañuy génn naan non à la France. Euh, mais parce que même système bi la c'est-à-dire que même chose bi la c'est c'est une révolte générale. et cette révolte là conduit à une révolution aujourd'hui France xam la war a def raser les murs négocier avec le peuple. et par delà négocier ak dirigeant ba mais comme ñoom gëmuñu loolu. ñoom dañu jàpp ni ñu gën. que dañuy teg dañuy force et malheureusement y a des complices. dafa am ay état complice mhm. des dirigeants complices mhm. tey jii nii France lépp lu mu ñàkk ci Sahel bi Sénégal lay jéem sukkandiku de mhm. pour pour pour moo tax ñun suñu njiit gis nga suñu njiit il lui faut beaucoup de d'abnégation et de courage le président Sall teel gëmal yàlla suñu borom bi la fi teg nga ànd ak moom ñun sénégalais ñu taxaw du la mënal dara malheureusement est-ce que il a ce courage là on ne sait pas mais jàppoon ni ni tubaab bi commencé perte Afrique def na gis nga ko Mali def na ko Guinée Conakry euh, dal na aussi tamit euh, Guinée Bissau tentative bi moom mooy mais xam naa ci la jëm mais jàppoon aussi tamit mënul def beneen stratégie boo xamante ne ni euh, dina xaw a sonal dëkk yooyu nga xam ne. lii di Mali Burkina Faso la stratégie aujourd'hui c'est quoi. Mhm. kan mooy financer CEDEAO. c'est la France waaw. donc stratégie bi mooy jéem a imposer CEDEAO ne oui il faut régler ce problème là il faut kii loolu li ñuy wax nii waxi suuf la noonu bu ñu ko wax ci kaw parce que ci kaw nit ñi xamuñu li xew xamuñu li xew mais la réalité aujourd'hui et c'est c'est là où la la presse sénégalaise les médias en général doivent aller c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je regarde un support média comme Afrique Média je me dis voilà des gens qui ont compris et toute la presse sénégalaise africaine loolu mooy combat bi cest à mais OGM lan la organi organisme génétiquement modifié. nga jël ko dugal ko ci dëkk bu mel ni Sénégal lan mooy objectif bi. mais c'est un génocide. effectivement c'est un crime organisé. Ah ah ñu voté ko assemblée nationale kan moo ko def. c'est loolu mooy traîtrise. Mm-hmm. mooy def des choses yoo xam ni. Mm-hmm. da ngay anéantir un peuple pour lan mm-hmm. pour les intérêts vils de quelqu'un. pour lan la France ëppale Sénégal wala lan la ñu gënee. wala lan la Macron gënee président Sall Macky. ba di ko war a mën a orienter fenn fi bay jël téléphone ñu kaa filmer muy tuutil suñu président. ñun mën nañu bañ a d'accord ak président Macky Sall fii Sénégal. mais man sama gis-gis sa bopp. président Macky Sall moo gën dix milliards de Macron. du moromam. moo ko gën. parce que je suis sûr que à sa position moom. doon koon def def noonu. je trouve que il le il le maltraite. respecté wu ko. mais voilà genre un benn genre dendoor de farce quoi. mais su fekkee ne su fekkee ne financement sénégalais yëpp France la koy jëlijee aussi. Euh, ñu am ay contrat yoo xam ne waaw. France su ñu joxee milliards. Mhm. ñun jox nañ ko deux cent milliards. Mhm. regardez toutes les entreprises françaises au mhm. wax leen ñu jëlee fi seen entreprise nañ leen wax léegi yéen ñaata lañ leen ameel dañ leen koy delloo. jël leen seen ay directeur ak seen ay and yëpp ngeen dem. billaay grand ñu supp sukkal la fi. loolu du yomb de France. bu ñu ñëwoon tey teg ko toutes les pressions. ñëw ne ko léegi abal ñu. mu sukkal la fii raamal la fii. un pays qui n'a pas de ressources. di conditionner euh, des peuples qui ont des ressources. Des ressources mais peuples yi ñoo bañ léegi. waaw ah léegi nag bañ boobu nag mooy problème bi. Mhm. Canal Plus Horizon lan la. Canal lan la. Mhm. c'est Vincent Bolloré. Ah la meilleure façon de dominer un peuple c'est de le distraire. Ah bu ñu xëyee ñun ñëpp yéen canal match yi commencé na. match yi commencé na. biing série bi commencé na biing biing mhm. yi muy joxe. moo ëpp qualité canal. lu tax biing nekkul Sénégal. mais dafay nekk ci réseau yi peut-être réseau câble yi et cetera mais mais aujourd'hui lan moo tax canal nekk biir Sénégal di xeex Excaf Télécom ñun ñuy ay sénégalais li Guy Marius Sagna doon wax sànq c'est-à-dire essence bi ñu leen di jox à l'assemblée 400 litres ñu ne la euh, cent litres yi 200 euh, yi wala 200 et poussières yi yaa ngi kaa jëlee ou 300 yi yaa ngi kaa jëlee Shell wala Total 100 yi ngay jëlee EDK. E wala wala wala nu mu tuddati Elton. mooy mais qu'est-ce que ça veut dire. et Guy il dit qu'il va pas le prendre il a raison. et moi j'aurais aimé que toute les l'opposition sénégalaise c'est-à-dire tous les les les gens de Yewwi Askan Wi. daal ne attention li Guy di wax dëgg la. bu ko jël. on crée un tollé comme ça ñu marqué le coup. et à parce que tey mënuma comprendre Sénégal ñu nekk biir Sénégal. non. quatre vingt pour cent du taux de croissance bi ñu amoon de six pour cent lépp mu ngi dem ci nasaraan yi léegi ñun Sénégal ñu nekk ay nit yoo xam ni daal ñun ñooy liggéey golo bay baabum dunde et suñu chef d'état yi nekk fi tranquillement ça ne les dérange pas mais loolu mooy fatt population yi loolu la nit ñi di kaas moo tax bu ñu gisee benn leader buy kaas loolu mais peuple yi dañu ànd ak kooku ok mais su fekkee ne eh, wax nga seegi ci affaire Guy Marius Sagna li mu wax sànq mooy wax ne du jël ci total essence bi ak yooyu mais su fekkee ne ñoom société yooyu total wala yeneen dañu subventionné loolu ba pare jox ko nguur gi et bu demee EDK lay gën a cher dépense bi dafay gën a cher ci état bi ak situation actuellement ni demee est-ce que loolu aussi tamit du poser problème mais non c'est-à-dire que même pour symbole gis nga tey jii nii mhm. un diplomate français mhm. buy jógee France di bu jëlee téléphone am woo la. dal naan je peux avoir une Chevrolet. Mhm. une Peugeot. Mhm. parce que loolu mooy loolu c'est loolu def loolu souveraineté lu tudd. Mhm. quel que soit nos rapports avec les gens. ak bu mu ti doon. toog assemblée nationale ñu naan la noo sa mbir yaa ngi kaa jëlee total wala fële. wala fële te am possibilité ay sénégal yu fi nekk di la ko jox. si c'est une catastrophe. cest dire que lan moo empêché nguur bi tey mu defal sénégalais yooyu ay facilité pour que ñoom ñu mën di defar di produit di leen jox mais mu nekk suñu biir mais parce que nguur bi nii moo fonctionné mooy aujourd'hui lebal leen ma xaalis ñu jox la xaalis buñ la lebalee nga ne ma fay bor ban bor ngay fay ki la lebal ngay fayat si c'est-à-dire que parfois on pose la question après ñoom boo toggee ñoom dañ la naan noo xam nga gars yi dañ lay xoj mais sawaay boo yoree sa kër yor sa njaboot am koo xam ne dafay ñëw sa biir kër di jël di dem di defar ñëwaat ne la jaay naa la te sa biir kër laa jëlee mais nga ne ko sëñ bi bàyyil léegi jarul ngay jël amul problème mën naa defaral sama bopp nga toog ànd ak yàlla liggéey loolu moo dëgg. ok d' accord Passane euh, temps yi ñu seetlu aussi tamit euh, coup d'état yi dafa bëri ci Afrique euh, lu ci mel ni ganna lu ci mel ni Guinée Conakry. Guinée Conakry Niger Mali et tout ça donc Burkina Faso. ñu gis nag cinq coups d'état en deux ans waaw cinq coups d'état en deux ans léegi nag Sénégal ñu gis ni donc ak pays yooyu ni ñu mel ci seen éco socié éco ci économique ñoo bokk lépp ñu nag dëkk boobu est ce que gisoo ni loolu temps mën na motiver aussi Sénégal vu que aussi fi réew mi toll nga xam ne jeunesse bi nga xamante ne def wala soit euh, donc slogan yi nga xam ne ñu ngi koy dénoncé mooy euh, nationalisation suñuy affaire moom suñu bopp suñu indépendant ñu def est-ce que loolu mënul motiver ak Sénégal ba ndaw ñi aussi ñu pousser ñu à ce que ci ci ay coup d'état wala. man man man damay ñaan yàlla ñu ci yàlla musal. <coughs> yàlla na ci Sénégal rëcc. d'accord euh, soldat. <coughs> son rôle du lool. Mm-hmm. quand bien même que soldats yi dañoo am niveau dañoo jàng am xam-xam. Mm-hmm. léegi nag lii tax loolu du am. Mhm. du dara doxal yoon. Mhm. exagération fu mu am. Mhm. exception am fa lu ëpp. tuuru rek tuuru exception la. donc yàlla ci yàlla musal. aujourd'hui y a nag une réalité. mooy que tant yaa ngi nangu les conditionnalités ou soi-disant li nga xam ni France mu la kaa tegal. problème du am. mais ñenn ñiy lànk dañ leen di coup d'état coup d'état yu jëkk yi daan am kan moo ko daan def Robert Denard la. Mm-hmm. Bob Denard. <laughs> ànd ak ay c'était un mercenaire. Mm-hmm. diilam lan la woon faat teg kii teg fi kii imposé kii. imposé kese c'est ce qu'ils ont fait jusqu'au 15 euh, octobre 1987. Mm-hmm. bi ñuy rey Thomas Sankara. ak ya ca topp ak ya ca des. guerre du Biafra. on pense anglais. mais multinationale yan ñoo fa newoon total la. donc aujourd'hui réalité bi lenn la. mooy peuple yi il na bëggatuñu dépendre ci koo xam daf ñuy sonal. soit daf ngay nekk partenaire ñu gérer mënuloo ko nga bàyyi. léegi nag ñoom. France li ñu yàgg def. mooy désinformer par des supports médias comme tv cinq France 24. France 24 euh, RFI nga xam dañ laa nëbb dëgg bi. ñun nag ñu nekk ay complexe toog naan waay man j'écoute RFI man je. Euh, j'écoute que je regarde que TV5. Mhm. xam nga mhm. parce que quand même. Mhm. mais saa waay loolu. loolu mooy musiba alkande. tey nag population dañoo comprendre décomplexé. information bi nit ñi gën a déglu wolof la. effectivement da ngaa wax wolof nu dégg la. mais tubaab pour jaxase xam lu mu def. dafa dem créer benn chaîne benn euh, entité. tuddee ko rajo Fulbe. pour diviser les peuples. yëfi seytaan la. yëfi munafiqun la. yëfi lâche la. mooy jaxase les peuples gëmloo leen ne non dangeen war a làkk bi làkk bi non ñii waruñu làkk làkk bi pour jaxase féewale heureusement que les peuples ont compris heureusement mm-hmm. parce que ñun dañoo am ay mbokk xalpulaar mm-hmm. am ay mbokk séeréer am ay mbokk leneen ak leneen jaxasoo boobu mooy seen problème mooy exceptionalité wu Sénégal moo tax yàlla ñu ci yàlla dimbali dara bañ kaa yàq moo tax nag il nous faut le leader pas un leader mm-hmm. le leader quelqu'un de super conséquent intelligent futé et tout surtout ragal yàlla ba pare am fit pour mën a look lu ñu mel te tey qu'est-ce mal les Maliens non surtout fit sax foog nga am fit ah saa ah, dafa nit gis na si àdduna mhm. nit dafa libre mais saa yi nit mën yow war ngaa ñemee yàlla ragal nit mhm. lu doy waar la de ah, ragal tubaab mhm. ne non boy gars yi dañu xaw doy waar mais ñeme yàlla nga ne non am na loo xam non saa yi tubaab mu ngi instant yi mu ngi may déglu de mu ngi déglu sama téléphone. Mm-hmm. instant mu ngi may xool de. mu ngi laa déglu mu ngi laa xool. Mm-hmm. pourtant am na keneen koo xam ne mu ngi laa déglu aw. mu ngi di xool tubaab di ko déglu. di la déglu mais kooku keeraloo ko parce que jàpp nga ni existé wul. Mm-hmm. peut-être sa gëm-gëm. donc des dirigeants yu am sens élevé. de de gëm. la foi. pour mën a def face parce que jafe-jafe yi ñu am yëpp mooy mooy ragal. tubaab bi ñeme sa borom. ba pare di di di persécuter sa dëkk.